xadiisu fukkeel ak juróom ñett ci téeréeb al imaam annawawi al musamma bil arbain annawawiya neena an abi darrin jëlee nañ ci saxaaba yonantu bu mag boobu ñu wax abu dar kuniya la mm-hmm. waaye moom la siiwee mm-hmm. turam nag mooy jundub ibni junaadata mm-hmm. jundub doomi junaada wa mm-hmm. abi abdirahman mm-hmm. ak beneen saxaabi yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu mag ñuy dàkkantelee bàyyi abdirahman tur yim siiwee nag mooy muaaz sayidna muaaz ibni jabalin radiyallahu anhuma mm-hmm. yal na yàlla boole leen gërëm mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp mm-hmm. an rasulillahi bi jëlee ci mawlaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne ittaqillaha wala ittaqillaha ittaqillaha allah Hmm. Euh, su fekkee ne baat bi ko jiitu hmm. dafa jeexe kasra hmm. laamu allah duñ ko diisal dañ koy nooyal taqillaaha ragalal yàlla xaytuma kunta foo mënta ne taqillaaha wattul yàlla xaytu maa kunta foo mënta ne ittaqillaaha wutal protection bu lay protéger ci mbugalam yàlla te looloy jëfee ndigalam bàyyi teram tereem xaytu maa kunta foo mënta ne barab moo xam barab bu feeñ la ñëpp di la gis hmm. baa barab bu nëbbu la kenn gisut la hmm. yàlla ngay gis hmm. wa huwa maakum aynama kuntum moo xam ci sa néeg nga nekk ci sa biir kër mbaa ci marché ba moo xam ni ñaa ngi ànd ak yow wala ànduñu ak xaytu ma ضافوا مكانه أي في أي مكان وأتبع نغا تخل سيئة جف جنياو mbaa wax ju ñaaw mm-hmm. mbaa lumo lumo lu ñaaw mm-hmm. alxasanata jëf ju baax mm-hmm. soo juumee tarxiis ba tàbbi ci lu ñaaw nang ca toxal mbaax ca saasa tam xuhaa ñu faa ko waa bi na nga toxal sayiata lu ñaaw alxasanata mbaax tam xuhaa mbaax ga dana far lu ñaaw ga jawaabu lamri la at bi fiilu ji mooy tam xuhaa moo tax nga jasam ko budul woon jawaab fiil mudaari'u mm-hmm. maxa yamxu la daanaan mm-hmm. tamxuuha bil waawi mm-hmm. waaye comme jawaabi lamru la te dañ koy jësam nga ne tamxuha soo defee lu ñaaw gaawal tofal ca lu baax ñii ne tofal ca lu baax mooy tuub tuub lu baax la te yàlla nee na innama tawbatu ala allahi lilladina yacmaluuna assuua bijahalatin summa yatuubuuna min qarib min qarib fa ulaika yatuubu allahu alayhim mu ne tuub daal yàlla nga koy nangul ñi nga xam ne réer tax nañu def njombe waaye ca saase ñu tuub mm-hmm. summa yatuubuuna min qarib mm-hmm. fa ulaika yatuubu allahu alayhim mm-hmm. wa kaana allahu aliman xakiman waaye nag walaysat altawbatu lilladina yacmaluuna alsayi'aati xatta ida xadara axadahum almawtu qaala inni tubtu laana xaar ba dee dikk ruugi xarxarle di waaj a hmm. nit ki mu leer ko ne dee dikk na mu ne xaaral ma tuub léegi mu ne ah c'est trop tard hmm. Hmm. yal nañu yàlla may tuub te nangul ñu ne kon atbii sayiat alxasanata tamxuha ñii ne déedéet atbii sayiat alxasanata mooy jëf ju baax ju mën a do rek dem julli la dem hmm. koor la dem sarax la nit hmm. def na lu mu warta def hmm. na gaaw def mbaax ngir yàlla baalee ko ca la ndax sama borom moo ne wa aqimi salaata xarafa yi nahaari wa zulafa min al leyli inna al xasanaati yu baax yi yudhibna sayiaati dañuy demee yu bon waaye ñëw na laaj yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ne ko man de dafa li jot ji góor li góor di def ci jigéen yépp def naa ko te ki ma ko seqal du sama soxna waaye yegguñ nag ci njaalo mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ne ko ndax bi ñuy julli fajar sànq yaa ngi woon ñun mu ne ko waaw yonent mm-hmm. daal di ko jàngal laaya ja inna alxasanaati mm-hmm. yudhibna mm-hmm. kon jëf ju baax ji julli fajar demee na bàkkaar boobu nga xam ne def nga ko tam xiis maanaam xeggut ci njaalo ñu déggee ci ne kon lu baax dafay far lu bon même su dul jëmmi jëmmi tuub xadis ji mu ci buxaari ci téere mawaqitu sola ci baabu solaat assolaatu kafaara wa atbici sayiata alxasanata tamxuha kon résultat wu tofale mbaax gannaaw mbon mooy daf koy far xam nga ko xam ne fum mu juumee rek hmm. dana jubbanti njuumteem hmm. bu yàggee du juumati waaw hmm. bu bëggee defati njombee lu baax la cay tegu dana ko fàttali mu far baax te def lu baax moo tax nit ki bu xaddi ko seytaane mu rek na def na jox ne def mbaax ñii tuub la ñii jëf jëf ju am tiyaaba la mm. waaye ñaar yëpp la mm. ak ki jot mm. jëm ci jëf joo xam ne jëf yi tiyaaba la dana ko sellal ñeel boromam ak ki ñeel boromam ak ki jëf-jëf ju indi tiyaaba dëgg dëgg mi ngi dellu ci boromam te benn ci maanaay tuub mooy dellu ci yàlla mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasanin hmm. na nga ngit nit ñi hmm. ak jikko ju rafet hmm. xuluq mooy melow biir ci doomu aadama xalku mooy melow biti ci doomu aadama alxuluqu jikko la melow biir la alxalku bind la melow biti la maanaam na nga nit ñi ci jikko yu rafet mm-hmm. ndegam wax la mm-hmm. ndegam jëf la mm-hmm. moo ana luy jikko ju rafet borom xam-xam yi nee nañu alxuluqul xasanu kaful ada mooy fekk lor maanaam fegal nit ñi sag lor yow maanaam lor bu jógee ci yow jëm ci nit ñi mm-hmm. wa badlun nadaa mm-hmm. ak yulli may mm-hmm. su amee luy jógee ci yow jëm ci nit ñi te dafa war a am lu jógee ci yow jëm ci nit ñi mooy may bu dee mayu wax la na wax ju rafet bu dee mayu jëf la na jëf ju rafet bu dee mayu poche la na bari te sell ñeel yàlla fegal nit ñi sag lor yëgati ci li la yàlla jox ci alal jox leen mm. wa al ada te buñ la loree ñoom nga muñ mm. wal wajhu taliqu mm. wala wal wajhu talqu talqul wajhi mm-hmm. wal wajhu taliqu ak kanam gu booyu kanam gu hubbeeku koo xam ne ku ku yegg si rek nga ko ko boo ko tëjal nit ñi xalaaqatul wajhi mook ñett yi ko jiitu hmm. ñooy jikko yu rafet hmm. wala ñooy jikko ju rafet hmm. fegal nit ñi sa lor yëkkati ci li nga amee jox leen muñ seeni lor ñoom te ubbil leen sa kanam loolu yëpp nag mu dellu ca wax yàlla jañ waxoon démb suma juumoo xudil afwa waamur bil urfi wa arid anil jaahili lépp lu jóge ji nit ñi ci wàllu lox baa nga baal bul xaar mukk ci àdduna nit ñi joxante ak yow ni nga bëgg yonentu xamut ko sallallahu alayhi wa sallam yàlla sax lim sant nit ñi ci wàllu sharia hmm. lépp defuñ ko hmm. li ci yokku sax hmm, lim leen sant nag te dogalam aju ca moom mënuñ ci dara nañ ni ndigal ñaar la oh, ndigalu dogal ak ndigalu shara ndigalu dogal na kenn mënu ci dara moom li ñuy tuddee ci langue làkki jamono ji loi yi nature waaye nature amul loi mm-hmm. loi yi yàlla la xuzil mm-hmm. mm-hmm. afwa wa amur bil urfi te digle mbaax wa arid anil jaahiliina te nga dëddu walis wayu reen jikkoy ju rafet nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam digle ko hmm. sama borom digle ko wax na sax yonentu ne ko fa bima rahmatin min allahi linte la hmm. yërmande yàlla hmm. moo tax nga mel ni nga mel nooya nooy bokk la gis bëgg a nekkal yow walaw kunta faddan galida alqalbi lanfaddu min xawlik message bi nga yore de mm. mooy message bi gën ci message bi muy alquran mm-hmm. saxaaba yi seen xol yi ñoo gën ci xol yi mm-hmm. war a taataan euh, alquran mm-hmm. waaye soo amee woon jikko ju li nga yore li muy baax baax ñu bala ko soo amee woon jikko ju li nga yore li muy baax baax يبلا لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك kon kat faafu anhu mm-hmm. danaan benn ci ñoom kat ñu mel ni nga bëggul waaye baal leen mm-hmm. mm-hmm. wastaxfir lahum bu ca yem baalul leen wa shaawirum fil amri bu ca yem balaa ngaa dugg ci dara diisool ak ñoom fa ida azamta boo dogoo nag mm. fa tawakkal ala allah bàyyil yàlla sa bopp inna allaha yuhibbul mutawakkilin sadaqallahu al-azim ju rafet nag am na loo xam ne bind la waaye am na loo xam ne ku ne mën na koo fàggu ku ne it am na lu la ca yàlla mooñaale lim ñu mooñaalee nag xëppale hante nañ ci Mm-hmm. waaye fàggu gi moom mm-hmm. bàyyi na ko ñëpp mm-hmm. ku fàggu rek mu dimbale la nee ñu innama sabru bi tasabburi mën a muñ mi ngi ci jàng muñ kuy muñ muñ lu rek bu yàggee nga mën a muñ innama sabru bi tasabburi maqaama moo gis jël nga dafa ànd ak toog lan mooy tegtale ne hmm. am na ci jikko yu rafet yoo xam ne bind la hmm. mooy waxi yonentu jam wax ashaj hmm. ashaj abdul qays ne ko inna fiika la xuluqay yuhibbuhum allah yow de ñaari jikkoom ci yow yoo xam ne yàlla bëgg na leen alxilmu wal anaa Mm-hmm. mu ko yow yonantu mm. ñaari jikko yooyu mm. dama leen jikkoo wala yàllaa ma bindaaleeg ñoom mm. yonantu ne ko bal jabalaka allahu alayhima mm-hmm. yàllaa la bindee noonu mm-hmm. mu daal alhamdulillahi alladi jabalani ala ma yuhib maa ngi sant yàlla mi nga xam bindee na ma jikko yim Mm-hmm. kon dana nekk shay tabi'i mm-hmm. Mm-hmm. ah nekk shay tabi'i yàlla koy bi loolu na ku nekk am na ca cër donte ëppalante am na ci ndax yonentu sallallahu alayhi wa dana wax ne fa kullu mawludin yuladu ala alfitra képp kuñ jut rek ñu ci fitra mooy xol bu set mm-hmm. wëcc mm-hmm. ak xel bu set wëcc mm-hmm. xol boo xam ne yàlla rek a ci ne leneen new ci fa abawaahu nag ay waajuram te mooy environnement ba muy màggee yu hawwidaani ñooy bind ci page bu vierge boobu leneen lu dul la ca yàlla def te mooy set ga yàlla rek nekk ñoo cee rax yahood yëtu ne ko yow yahood nga waaye ñu rax ci nasraaniyatu hmm. aw yu nasiraani yi nekk nasraan yi wala ñuy rax ci majoosiyatu aw hmm. yu majjisaan yi hmm. maanaam ña ko yar ñooy def ci moom lu dul lam judduwaale waaye xale moom yàlla rekk la judduwaale imaam Haddad mu ne yaa ayyuha ruuxu hal tardaa mujaawaratan ala dawaami li haada almuzni bilkadiri yaa ayyuha ruuxu ay yow ruux hal tardaamu jaawaratan ala dawaami ndax da nga gërëm dëkkaale ba faw li haadal muznibil kadiri jëmm ji nga xam ne bàkkaarkat la te nëx na maanaam tey gi nga xamee moom amut ko alasta kunta wala jisman tusaakinuhu alasta fi xadaratillahi fa dëkkiri alasta kunta moo xanaa neewa woon wala jisman te booba yàlla bindagul jëmm tusaakinuhu bay dëkkaale alasta fi xadaratillahi xanaa neewa woon ci xadara yàlla yi fa dëkkir fàttaliku loolu xataa jucilta bi amrillahi fi qafasin li yubtalaak fa kun min xayri muxtamiri bëj bés ñëw rek yàlla dugal la ci kaaf gii di jëmm hmm. ngir nattu la hmm. yàlla neel hmm. ki gën ci ku ñuy natt li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan tabaraka alladi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shayin qadir alladi xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan lenn rek tax ñu dikk fi mm-hmm. natt mm-hmm. wala nabluwannakum bi sharri mm-hmm. wal xayri am na ñoo xam ne na foog nañ ne natt mooy feebar wala mooy ñàkk wala mooy bëgg loo xamut waaye xam li nga bëgg sax nattu la wala nabluwannakum bi sharri wal xayri xéewal goo gis nattoom ca biir yàlla neen maa leen nattoo char maa mm-hmm. leen nattoo xëy mm-hmm. waaw li ñuy tuddee xay mm-hmm. nattu la rek li ñuy tuddee xiw nee na nattu la itam wala euh, nee na kon nag ruux gi yàlla daf ko indi mu set wécc am la Cheikh Ahmad Tijaani radiyallaahu anhu ne masuliyatu nag doomu aadama bi mooy dellu ci yàlla delloo xaale ruux gi safaa u gim indi xaale woon safaa u góog nag dafa yu ko mën a nëxal yu ko mën a nëxal mën a nëxal bokk na ca eh, lekk gu bari loo mën a nëxal bokk na ca naan gu bari yu ko mën a nëxal na ca nelaw yu bari yu ko mën a bokk na ca jaxasoog nit ñi yi mm-hmm. ko mën a naxal mm-hmm. bokk na ca fàtte tudd yàlla yi mm-hmm. ko mën a naxal bokk na ca fàtte xalaat yàlla waaw léegi nag yi nga xam ne ñooy dindi nax ga ñooy safaanu yu koy naxal Cheikh Tidiane tudd na ko radiyallahu anhu Cheikh Alxaaji Omar Ndaw way na ko defe naa ci téeréem boobu ñuy wax na sixatul ixwaan nasihatul ixwaan benn la ca waaye dañoo boole xasida ya ca nekk tuddee téere ba faat nasihatul ixwaan kon kay wax naan arkaanuha sumtun wa juucun wa sahar wa atashun wa xalwatun liman dakar min gayri ifraatin wala tafriqi xayrul umuuri ziina bi tawsiqi arkaanuha mu ne ponk yi nga xam ne hmm. ñooy ponk ñooñ yàlla hmm. yi tax ruux hmm. set nit ki àgg ci boromam delluwaat ca moom sell nam sellee ba muy dikk mu ne sumtum mooy noppi lu dul li ngay wax lu am njëriñ la wa juucun ak xiif wax ne nun yonent yi duñu lekk fekk xiifuñu duñu lekkee duñu rekk wala mm-hmm. nam ko waxee mm-hmm. arkaanuha sumtun mm-hmm. wa juucun ak xiif wa saharun ak fop ñëpp di nelaw nga jóg jaamu yàlla wa atashun ak mar yaa ngi woor te fekk yaa ngi bëgg ndox waaye bax nga ndox mi ngir gërëm doo wa xalwatun ak féex waaye bu fekkee ne ndaje moo am nga bëgg caa ne hmm. xew ci facebook bi ñu bëgg ca xam hmm. lu ñuy wax ci youtube bi ñu bëgg ca xam hmm. lu nit ñi di discuter ñu bëgg caa bokk duñ àgg fañ jëm mu ne wa li mën zakar ñeel koo xam ne nag wéetul rekk waaye ba mu wéetee it ma tudd yàlla ma ngi koy xamal alkaana wax sumtun wa juucun wa sahar wa atashun wa xalwatun liman dakar min gayri ifratin wala tafriti zina bi tawsit mu doo ci ëppal doo ca sàggan da ngay def ndànk ndànk ba nga miin boo ko jëlee doole doo dem soo tàmbalee wutit noonu mm-hmm. kon ku nekk ci ñun rek mm-hmm. yàlla moo ñaanee la mm-hmm. sell googu waaye nag am na lool ci jikko nag dañ koy fàggu fàggu gi mooy ba du yàqu fàggu gi mooy lépp loo xam ne lu ñu wax ne lu baax la ci yi ñu tudd ñu tàmbali bu yàggee rek mu nekk suñ jikko bu yàgg rek mu nekk suñ jikko te li neex ci jikko ju baax mooy daf lay noppal daf lay noppal daf lay noppal wax naa dégg ci Oustaz Barham Diop mu ne El Hadj Ibrahima Niass daan na wax ne may kenn euh, genew ko maanaam yàlla ñi may yëpp yeneen na leen mm-hmm. waaw nit ki bu fekkee ne mm-hmm. jikkoom rafet na mm-hmm. dafay dal mhm. dafay noppalu mhm. dara du ko tiital mhm. koo gis foo fekk mu ngi stressé foo fekk mu ngi jaaxle lu yëngatu mu tiit am na lu doxul waaw di ko ja des na xadis la ju gàtt waaye ñu buñ cee jànge yu bari bokk na ca warub ragal yàlla am nañu ndax nee na ittaqillaha xaytuma ragal yàlla nag ci tënk mm. mooy imtisaalul awaamiri mm. wattinaabu mm-hmm. mm-hmm. waaw mm-hmm. def ndigal yi mm. bàyyi tere yi moo xam ñun rekk a ne nit ñi gisuñu wala ñu ci kanam nit ñi ragal yàlla ci kanam nit ñi nag moo gën a yomb te ñaareel ki koy def dafay def jëfi ragal yàlla rek mm. waaye boo moytu sax ci mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. sëriñam mm. mos naa discuter ak sëriñam mm. maanaam sëriñam ak sëriñu sëriñam wala sëriñam ak kenn ci ñooñ yàlla ca waxtaan woowu ba jeexee nee sëriñ ba daal di wax nit ko nit yàlla que ni ko ah, daan wi di bokk na ci waxtaan yi ma gën a yaakaar sama kanam borom ndax biñ fi toogee ba léegi qaala allahu qaala rasulullahi rek lañuy ñuy wax sëriñ ko nitu yàlla ko ne waxtaan wi de bokk na ci waxtaan wi ma gën a tiital ma ne ko ah, lu tax mm. ne ko ndax biñ fi toogee ba léegi ku mm. nekk yaa ngi wane adab mm. yaa ngi wane teggin yaa ngi wane jikko ju rafet yaa ngi wane correctness yaa ngi wane correction ci sa morom yaa ko respect mm-hmm. mu mën naa am yàlla taxut mm-hmm. waaye ngi soloo tax mm-hmm. bañ la mer rek a tax mm-hmm. def moo ko te yàlla tax looloo tax ma ragal tax nit yàlla yi ne nit jànkuwantewut ci xare lu gën a metti xare bakkanam ci lixlaas bakkan def dara nit ñi gis ko daf koo neex def dara kenn bawu ci xel neexut ko waaye buñ ko ca tàggatee nag mën naa dem ba lépp lu muy defati du ca seetlu euh, nit ñi mm-hmm. ñëpp gërëm nañu mm-hmm. ak ñëpp sànj nañ mooy yem ci moom mm-hmm. gannaaw yàlla gërëm na rek waaw euh, walaytaka tarda wala anaamu ridaabu ki ko waxoon buur ab buur la ko doon wax muy euh, woykat bu mag ba nu mu tuddati abu tayib al mutanabbi Seyfu Dawla mm-hmm. da doon woyu mm-hmm. ak yenn ci góor yi mm-hmm. ne ko ak a neexoon nga gërëm dee mbindéef yëpp mer nañ sax waaye woy woowu yàlla rek ko moom wa laytaka tarda wal anaamu xidaabu boobu yàlla rek ko moom kon waruk ragal yàlla danañ ko ci jànge ragal yàlla nag li muy firi mooy def ndigal bàyyi tere yi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dana ca yokk min xaytu yarda huwa laa min xaytu tarda anta ni yàlla gërëmee faa ñun ni ñu gërëmee ni yàlla gërëmee faa ñun ni ñu gërëmee beneen biñ ciy jàngee mooy alxasanaatu yudhibna sayyi'aati yu baax yi dafay demee yu bon mm-hmm. gannaaw matuñ nag mm. léeg-léeg suñu bakkan mbaa seytaane xër ñu ci tarxiis mm. buñ tarxiisee mbir mi newul ci nga daanoo mm-hmm. maanaam mbon dëgg mooy daanu bañ a jokk mm-hmm. fu ñu tarxiisee bay bëgg daanu nañ jokk buñ daanoo it nañ jokk loolu yàlla ngi ciy wane ngëneelam ci jaam yi xam nga suñ seetoon adl mm. kon lu baax hmm. ci jëf hmm. mënta demee li bon ci jëf ndax libon moom ma nga fa hmm. li baax it ma nga fa mën naa am sax yeggut de ci degré yi mën a for far lu bon li waaye mbaaxu yàlla tax lu bon fu mu amee soo jëfee mbaax lu tuuti tuuti mbaax ga far ko koo koy fadlullahi azza wa xaala ibaadi yàlla waxoon yonent bi wa kaana fadlullahi alayka aziman mm-hmm. te ñun comme ay taalibee yonent lañ mm-hmm. ah, lu mu ko may rek cëral nit yi mm-hmm. eh, naka la ko imaam Buusiri waxee bushra lana ma'shara al-islaami inna lana min al-'inaayati ruknan ghayra munhadimi lu tax mu ne la maadaa allahu daa'ina li taa'atihi bi akrami rusuli kunna akrama al-umami waaw ba yàlla defee yonent muy gën ci yonent hmm. rekk lañ mujj lañ nekk hmm. di gën ci xeet ndax gën ci yonantu moom gën ci xeet rek lañ koy yónni hmm. te yàlla yaxal na ko sax kuntum xayra ummati uxrijat linnaas ñu ne waaw kii def mbaax googu ndax daf ci yéene far bàkkaar bi mu def léegi wala soxlawul yéene bu ñu seetee zahirul xadiis yi mën naa am soxlawu sax yéene waaw bu ñu seetee zahirul xadiis dañuy wax ne soxlawul yéene ndax waa ja defoon lam def ñëw julli si ak ñoom fajar ba muy julli fajar ak yonantu sallallahu ci woon far bàkkaar bu xamoon ne dana ko ca far bu xamoon ne bàkkaar ba far bu fekkoon ne fokk nga yéene yéene kenn du ko def gannaaw jëf mm-hmm. te gannaaw jëfam la laaj yenantu mm-hmm. gannaaw bi ñu jullee ba pare mm-hmm. la laaj ne ko man de def naa nangam yenantu ne ko ndax yaa ngi woon ak ñun bi ñuy julli fajar ak le bu ñuy julli fajar mu ne ko ah kay mu ne ko waaw mu ne ko kon eh, yàlla nee inna alxasanaati yuzhibna sayyiaati waaye su yéenee gannaaw xam na lii na ko jëf na ko na ko def ngir mu mujj ci wuutee ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam kët wax na ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma ci xadis yi ñaax gi yàllaa ko yonentam di ñu ñaax ci jikko jikko rafet ak nit ñi wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasanin da mm-hmm. nga jëflanteeg ñi jikko ju rafet mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mhm. inna allaha rafiqun mhm. yuhibbu rifqa fi kulli amr yuhibbu rifqa fi amri kulli yàlla dafa ñeewant te dafa bëggub ñeewant ci mbir mi yëpp loolu nag am na sabab am na taarix wax jooju yonentu dafa toog ab yahud romb daal di ne assalaamu assalaamu aleykum mm-hmm. yaa muhammad mm-hmm. xam nga dafa ñu rek assalaamu aleykum mm-hmm. te fekk saamu mooy dee nañ jàng ci xabatu sawdaane aleykum bi hadihi alxabati sawdaai fa inna fiha shifaan li kulli daain illa saama ngeen di jëfandikoo xabatu sawda ndax saafaraa ngi ci ci bépp mm-hmm. dee mm-hmm. dee rek la faj dee nag mm-hmm. kenn mënu faj yahudi bi ba mu ne assalaamu aleyk nday aïchatu radiallahu anha xam na li wax mu daal di ko delloo la wax daal di ne ko aleyka saamu wal laanatu jazaan wifaqan ina wasi dégg nga maanaam aleyka saamu wal la rëbb xam nga fay na ko lam ñaan lam lam wax mm-hmm. Mm-hmm. waaye dolli na ko ci sax am rëbb mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ko déet inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli yàlla dafa ñeewant te bëgguk ñeewant ci mbir mi yëpp wa ida sallama alaykum ahlul kitaabi fa qulu wa alaykum su leen ñun kitaab mooy yahudi yi nuyoo mm. wax leen rek wa aleykum mm-hmm. Mm-hmm. dégg leen wa aleykum ak yéen mm-hmm. su fekkee ne jàmm lañ ñaan ma ne ak yéen fekkee safaan la ñaan ma ne ko ak moom lim ñaan nangu waaye yow li nga nangu ndax moom moo tooñ yonentu sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax wa naasa bi xuluqin xasanin nit booy jël sa xaq sa na ko jël ci ñeewant wala na wax ci xadis ne jàmbaar newut ci ko bëreel daan ko jàmbaar mooy mën not sa mer ba la def loo loo war ta هذا وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم yal nañu yàlla may dégg ñu topp waaxiru daawaana alhamdulilah rabbil alamin